war a ñëw dëkk fi nag inni jaailun fil ardi xalifatan malaaka yi nag gis seen bopp mooy ki wane woon ne man kat juróom-benn weer laay neex mu ne damay far toog léeg nga dégg ko malaaka yi tamit ne yow yàlla koy xutati ñun doy nañ di loo koy xutaat ñun doy nañ atajaalu fiha man yusidu fiha wa yasfiku dimaa da nga fii nar a indeeti ki fi newoon rek ku yàq suuf di agressé say tuur deret kuy yàq suuf topp ba kanam di mooy yàlla ñun doy nañ ndax wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu laka ñi ngi wax qualité yi ñu am yàlla ne baax na inni a'lamu ma la ta'lamuna xam naa lu lu ngeen xamut ba bàyyil bañ xegg ca nag loolu nag lay wax si nii ci aaya yi ñu bëgg a firi moo tax sama borom ne wa fàttalikul id qaala ba waxee rabbuka borom sa lil malaykati ñeel malaaka yi ne inni naka man jaa'ilun aji def si laa fil ardi ci suuf xalifatan ku may huutu muy muy aadama xaaloo malaaka ye ne ko atajaalu ndax da ngay defati fiihaa ci suuf man yufsidu kuy yàq fiihaa ci suuf ba mel ni jinne yi fi nekkoon wa yasfiku muy tuur dima a deret te wa nax nu ñun ñii nu sabbihu ñu ngi sax dàkk di la sàbbaal bi hamdika mbir mu ñuy làmboo sant sax wa nu xad sàllal maanaam laka ñeel la su ko defee nag xaala sama borom ne inni naka man aalamu xam naa maa laa taalamuuna lu ngeen xamut ci mbiram xilaafa ak maslaha ga foofa rek waxal ma la xamal moom yàlla adama adama al asmaa tur yëpp kullaha yëppam laa wax suma aradum topp mu gaaral tur ya xalal malaakat ci malaaka yi fa qaala mu ne am bi woo nii solo leen ma bi asmaa yi haawulaay ci tur yii gaay lépp nga fa woon in kuntum dem nekk ngeen saadiqi ne di way dëggu ne munu maa bind ku leen gën xaaloo malaaka yi ne ko subhaanaka tudd nañ sax sell laa xam-xam lanaa di ñu ñeexal illa ma alamtan lu loo ñu xamal te lii bokkut ci innaka naka yow anta yow laa wax al alimu yaay xamaa kon bi hakimu yaay ki xereñe te lii ñun xamuñu ko foofa nag yàlla wane ne ak xilaafa ak mage du ko yore yàgg fi ak xilaafa mbaax du ko yore mais xam-xam ko yore jël aadama rek mi mujj judu juddu roof ko xam-xam boo xam ne nekkut ca malaaka ya te malaaka ya ko mag ñoo ko dàq jaamu yàlla yàlla nag ne ah ngi nii kon euh, xam-xam ci laay fale xam-xam ba wax ma lii booba nag foofa dara amul lu fa nekkutoon lépp lu ñuy utiliser fii tey ci àdduna ma ngi foxon woon télévision ak nuñ koy taxalee ma ngi fa woon rajo ak nuñ koy taxalee portable ak nuñ koy utiliser mbaxana ak koy solee ay yére bàyyiwul dara site internet yi nuñ cey duggee lépp amul dara al asmaa kullaha bàyyiwul dara malaaka yi xool xamuñ ca dara ah, yàlla nag ne aadama nag yow laa sol xam-xam bi xamal leen luñ cey déggee kon ki xam lii sa warugal mooy xamle boo xamee rek xam leen te yàlla tax mu xamal leen moom tamit yàlla nag ki xam nag comme moo leen xamal ki muy xamal da koo war a teddal da koo war a màggal kon nag usjudoo li aadama yéen ñoom ñëw leen ni ngeen root sujootal adama su ko defee nag ñi màggal ko iblis moom xool ak mageel xool tamit yàgg jaamu yàlla ne maa ko fi maa ko dàq jaamu yàlla maa ko maa ko mag ah, maa ko gën kosaan ah duma ko du ko sujootal lu tax mu ne xalaqta nii min naar wa xalaqtahu min tiin yaa ngi ma bind ci safara ki nga bindi ko ci ban naka lay safara mi am leer di su jóotalee ban daanu na ñaari yoon euh, ba mu demee ba ca kanam ci la door a xam ne ndee gën safara yaakaar naa gars yi yëngatu ci pàkk yi xam nañ ci dara boo jëlee juróomi million dénk ko suuf juróomi at boo ko jeex mu jox la trent million waaye boo jëlee juróomi million dénk ko safara une minute laa la may mu lakk ko léegi léegi du ko mat sax kon moo ko gën moo tax keroog moom ñoom ñëpp wax nañ ko ñoo tax ñu ne yaa layta nii kuntu turaaban kon daanu beneen bi tamit daanuwaat na tekkiwul ne ku gën cosaan moo la gën man ngaa gën nit ki cosaan yaa ko gën bàyyi fuuf gën ko maam fuuf mu ñëw gën la mbir mi nekkul foofa kon même même bu fekkoon ne gën ban taxul mu gën aadama kon mën naa wax ne maa ko gën cosaan waaye taxul nga gën ko kon daanu na ñaari yoon moo tax kon di xiyaas naan maa gën nangam ak nangam te loolu bëri léegi suñ penc mi rek koo wax rek nga ne ñun mi lañ ñun gararal lañ ñun sëtu diw lañ boo neexee sa tëb diw te mënoo niinal kenn lu muy jariñ boo neexee sa tëb diw ngaa war a mën a niinalaate waaye boo mënta niinal kenn du jariñ dara kon aaya ji pour ñu mën cee dëgg-dëgg dugg ci dañ koy lebaat rek ba yegg si technicien bi mu may xamal li ñuy may ci waxtu wi euh, buñ ci ñëwaatee dañuy wax digg xilaafaak aadamaak la ca ajoog la ca aju loolu bu ñu fi dellusiwaatee lañ koy gën a leeral incha allah yal na yàlla nu ñu fi ci jàmm ci barkeeb sayyiduna Muhammad liñ ci yàq xam naa bëri na yal na ko yàlla jéggal liñ ci xam yàlla nañu yàlla may kartan guñ ko mën a jëfee ci barkeeb Seydouna Muhammad san sa barkeeb alquran mu mel ni tey nag suñ plateau bi moom bokk na ci plateau yi gën a riche tabaarakallaahu ay doomi soxna di ay boromi xam-xam yoo xam ne mënoon naa sax yolleeku nànk rek ñoom ñu ñëw toog fii te su boobaa kenn ku ne ki ñoom danañ wax lu gën a leer fuuf li ma wax ñooñu bokk na ci al oustaz Omar Ndiaye mii toog tabaarakallaahu alimul allaama yàlla na yàlla dëgëral ak Seydina oustaz Alioune Sall borom xam-xam la macha allah sëriñ Abdourahman Niass yore daara ba amoo boroom borom xam-xam tabaarakallaahu al oustaz Aliou Ñaan gis naa ko fi sëñ Muhsin Niass alhaji ah, ah, Keeba Ndiaye tabaarakallaahu alhaji Malick Ndiaye tamit nekk nit ku bëgg alquran heure bu nekk maga ca sëriñ Abi Niass ñoom ñëpp gis naa leen fi alhaji ah, Jim Diallo mi ngi fi al oustaz Habib Ndaw lu mat juróom-ñetti at mi ngi ànd ak ñun bay Mbaye Ndiaye. gis naa leen tabaarakalaaw ci plateau bi euh, ñi ñëw wétlu ñu ci yal na yàlla jàppale leen jàppale ñu defal leen tawfiq ak taysiir xam naa ñi ma gis te mënuma leen a lim rek ñu jéggal ma beneen yoon rek wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.